ba defal leen ko def lu baax yéene ko say waajur ci ñaan la bokk muy lu mel nii mu def te lii fekk mi ngi am ndox nit ñi di ci naan ki ko defoon di ci jariñu donte sax ma nga bàmmeel tabarakallahu kon ñi ngi am sant bu baax liggéey bi yàllaa ngi dogal bi ñu ko tàmbalee ak léegi taxawul mi ngi dox mi ngi am avancement bu baax ñun daara ji am nañu tabarakallah xol bu sedd sunu yéene la woon bu yàgg bu yàlla dogalee mu sottee ci ndaw si loo gis rek am na ajal kon ndaw si yàlla na yàlla dogal lii mu def mu nekk ay milliards ki yiw fekk ñaari waajuram yéen ñiy intermédiaires yi sabab ba mu sotti it bu amee yiw di ngeen ko am fii nag daara la yàlla dogal na ñaari fànn lañ fi jàng ba ñett mooy dañ fi jàng alquran ñuy tari am na beneen fànn boo xam ne mag ñi toll nii la nga xam ni ñoom xam-xam la ñuy jàng pare nañ ci alquran ñii ngi jóge Tëngéej ñii ngi jóge Saalum ñii ngi jóge Waalo fu ne ah lii mooy daara ji li liñ ci bëgg rek mooy avancement yàlla dogal na it euh, amul benn xale bu fi nekk fépp fi la ñuy lekk fi la ñuy naane amul yalwaan amul leneen jàng rek moo fi am ak tarbiya ten rek moo ñu gënoon jaaxal ndax lu tax mooy benn activité buy génne suñuy xale pour dem wuti ndox te léegi-léegi gone gi fi muy génne di dem balay dem bay ñëw mën naa dugg ci loola loodul foog kon su yàlla dogalee ñu am ko ci biir eh, daara ji kooku moom alhamdulillah la ñuy wax sant yàlla mais sant ñëpp daal. liggéey bi day moom mu avancé bu baax a baax te wax dëgg boobu ba léegi moom tooguñu xeer bi ñu jot tey sax moom moo moo ma xaw a jaaxal sax waaye kon tey tey. fokk ñu jot ndox parce que tooy na xëpp xëpp mu ngi ci kaw ndox. ah kon dafa tooy nii. actuellement hmm, tooy na tooy na bu baax a baax. kon ça veut dire que soo rombee xeer bi rek normalement ndox day ñëw. waaw waaw ñu jigéen ji nga xam ne mooy finance teen bi. moom nekkoon yéene mooy teen bi am ndox balaa. ñuy génn koor gi. waaw waaw ñu naan. ndox yi jitu yi daal. waaw waaw. Eh, mu melni kon dafa yalla ni bëgg man na am sax bala bala ñoo wori mhm. man daal lool moy sama eh, bëggu bëgg bi mako commencé ba tay mhm. budul aljuma du ñaari fan ma amul benn bes bi ma xeyul pour te ko rek. Eh, kon soxna ci ñoko ko liggey bi melni mi ngi avancer bu baax baax yalla na yalla yombal ñu manam jot li nga xamni mom lañu bi dal yal na yàlla nangul la sa yéene yàlla mottali ñu li nga xam ne moom la ñuy sàkk muy ndox mi ndox mi bari barkeel waaye muy jëriñ non seulement daara ji mais muy jëriñ ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi yëpp yal na la fay maa leen di sant di leen gërëm yi ngeen fi ñëwee yal nay tànk yiw kii def lii tamit yal na ko yàlla yokk ba mu yëg ko yàlla nañ dund ba mu bënn ba lii tax mu def ko yàlla fay ko yal na ko yàlla defal jàmm daal ndax noppal ngeen booy si coona te képp koo xamante bi nii sauvé na benn bakkan rek mel ni ne sauvé na àdduna bi yëpp te booy loolu ñu doon def mënoon nañu see ñàkk seen bakkan ndax coono gu métteeg yeneen ak yeneen mais alhamdulilah ba ngeen ñëwee teggil leen ko defal leen ko fi nga xamante bi nii mooy si biir daara ji yombal lépp di leen ci sant di leen gërëm di rafetlu lépp loo xamante bi nii def ngeen ko ci weeru koor bi dagg seen yitte yëpp ñëw taxaw loolu nga xamante bi ni moom mooy li ci nekk soxna si tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla mhm. yàlla defal ko jàmm yàlla seddal suuf si ci kaw ay waajuram yàlla aar ko làq ko fu loxo yàqkat yeggul li nga xamante bi ni mu ngi koy def yàlla na bu mu yem fii te yàlla na yàlla guddal fanam sàmm ko aar ko di rafetlu lépp loo xamante bi ni daal wàcce na ko ci biir daara ji di ko ñaanal jàmm teg si di ko sàkku si moom di ko wax jërëjëf yàlla na yàlla fay